Beaucoup de ci virus yooyu moy spoliation foncière bi coow bi am ci wàllum suuf ñuy jaay doole baykat yi nangu seeni suuf di ay privé Beaucoup de ci virus yooyu la lu ñuy wax népotisme di recruter ñi nga xamante quest sa xeet kese la bàyyi ñi nga xamante ne ñoo gën a recrutement ci wàllum emploi des jeunes Beaucoup de ci virus yu Macky Sall war confiné tamit mooy la gestion opaque des communes yorin bi nga xamante ni euh, communes yi ñu ngi koy yor alalu askan bi loolu lu ñu war a confiner euh, la la war a doon waaye tamit bokk na ci lu ñu war a confiner agression salfaañe li nga xamante ne mooy suñu environnement maanaam suñu nekkaan bokk na ci forêt classée de Mbao bi nga xamante ne ñu ngi bëgg a décla euh, déclassifier dix hectares ci biir forêt classée de Mbao bi waye tamit bokuna ci la bande des filaos bi nga xamanteni ñing koy caxat-caxatee fu mu toll nii yii mooy virus yi nga xamanteni ni Macky Sall waroon na ko mën a confiner muy confiner la liberté les libertés des des gens pour mën leena empêcher ñu mën def li nga xamanteni moy mooy manifestation comme nu ko comme nu leen ko constitution bi maye motax tax ngi dénoncé ci fu dénonciation yem li nga xamanteni mooy violence bi nga xamantene ñu ngi koy exercer ci ñun ñoo lank ar luñu ñu bokk rawatina suñu camarade yi ñu yebalon le lundi passé pour ñu dem déposer li nga xamantene moy lettre d'information parce que ñu ngi leen doon topé comme rassemblement barki démboo Njaay gis nañ ci famille présidentielle ñu doon def seen xew ñu ci bari ci ñoom takkuñu sax masque lolu rassemblement mënu koo weesu nañu bàyyi tapalé bu ñu nekké ci réew mi barki de moo Ndiaye gis nañ fi le ministre du commerce Assome Diatta mu def ci meeting bu reuy ci benn salle bo xamante ne lu mu néew néew rek 500 personnes ñi ngi fo won toog kon nañu bayyi intimidation bi nañu bayyi euh, euh li nga xamante moy violation bu ñuy teg ci suñu ndodd ñun te à partir d'aujourd'hui ñu koy wax nous nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que ñun dootu ñu nangoti nous nous intimider à ce point d'autres nous nangootu ñuy acharné à ce point d'autres ñu nangootu à ce suñu ak suñu parce que suñu camarades yu demoon di passé devoir dem déposer pare dem ñibbi moment bu ñu déposer la police acharné wu seen kaw d'une manière brutale violente leen ba pare jël ki nga pas ne à 18h ñu ne ko gisuñu luñ lay topé bayi wat ko mu ñibbi lolu dootu ñuko nangoti tay dootu ñuko nangoti ëlëk thank you